tey euh, ñaxtu la woon ndax dañu nekk képp koo am loo xam ne euh, mun nga ko ñaxtu ci fii ñu toll ci élection yi ci organisation élection yi maanaam ubbil nañ la bunt pour nga indi say ñaxtu kon boog suñuy ñaxtu euh, yóbbu nañ ko saytu nañ ko bu baax a baax xool nañ ko la nga xam ne lépp yoon wax na ko topp nañ ko euh, tànk ak tànk benn ak benn ba ñun am nañu yàqin ne que bu fekkee ne que yoon rek la ñuy dogal Ousmane Sonko dina participer ci élection yi léegi euh, ñëpp gis nañ ne que benn kayit rek lañ ñu ne woon que kayit bi motul et que léegi ñoom xoolaguñu mbir mi ci biir. pour maanaam mën a wax nan la tuddati ndax euh, mbir mi jeex na walla jeexul kayit boobu non seulement jox nañ leen ko wante lépp li nga xam ne ko yoon wax na ko matal nañ ko kon boog bu fekkee ne yoon mooy dox di wéy na ñëpp jàpp ne ko que Ousmane ko dina bokk ci élection deux mille vingt quatre le vingt cinq février kon denc leen espoir bi day nga yàlla. nit ak ay pexem yàlla ak dogalam wante lañu def te yoon wax ko war nañu mën a may ne ñu jàpp ne que Ousmane Sonko dina dem élection 2024